ñu ngi ko jëmale woon ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci waxtaane ay jaar-jaaram tey mooy juróom-ñetteelu jataay bi yaakaar naa ci suñ jataay yee ñu mujje wax ñu ngi tolloon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamee ne denc na soxna Khadija ba waxtaan nañ ci diggante bi nga xamee ne moom la ko yonent gi di dikkal maanaam bi mu am ñeent fukki at ak diggante bi bi ko bi nga xamee ne suñ borom dogal na digganteem ak soxna Xadija mu nekk soxnaam diggante boobu li ci gën a fës ci xeeti xew-xew yoo xam ne xewoon na ci diggante boobu lañ tolloon ba ñoo ngi woon sax ci bi mu amee fanweeri at ak juróom bi nga xamee ne ñu ngi yeesalaat kaaba gi waxtaan woowu nga xam ne moo amoon ci digganteem ak mbooloo ma nga xam ne ñoo sàkk woon ci ne ku njëkk a génne ci bunt bi yaay ki ñuy at yaakaar naa xis saba nettali woon nañ dem demee yépp buñ ñee fanweeri at ak juróom nag di dox ci digganteem ak ñeent fukki at bariwul waaye diggante boobu nga xam ne ci la toll ak fanweeri at ak juróom jëm kaw Màkka ku ne xam ne ne dëkk la woon boo xam ne daa xumboon lool marché bi gënoon a rëy ci gox boobu foofu la nekkoon waaye barabu jaamukaay bi nga xam ne fa la nit ñi ñëw di dajaloo di jaamu di jaamu yàlla moo xam ñi nga xam ne dañuy ñëw kaaba gi yitteel leen wala la nga xam ne fesoon na fa lool ca tasaaroo woon fa muy ay xërëm yu baree baree baree bare daanaka xabila bu ne sax amoon na xërëmu boppam boo xam ne moom la doon jaam lu baree bari ci xabaayil yi du woon ñëpp nag mu nekkoon dëkk bu xumb lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom dogal nag mu bëgg wéetaay lool ñaare lu mu deful rek bu nekkul ca liggéeyukaay ba walla nekkul ci loo xam ne lu am solo la day daal di génn maanaam ku bëggoonu wéetaay la fi nga xam ne nag foofu la tànnaloon boppam di fa wéet foofu la ñuy wax xaaru xira benn xunt la boo xam ne digganteem ak almasjidul xaraam boroom xam-xam yi nee nañ toll na ci ñeen fukki kilomètre ak lu teg ñu bari nag dañ koy jaawale xaaru sawr bokkuñu ñaari xunt yooyu bokkuñu xunt mi nga xam ne ba mu tolloo ci ñeent fukki at ca daa dem di wéetal boroomam moom lañu wooye xaaru xira ñeenti kilomètre la ak digganteem ak masjidul xaram même xaaru sawrit ñeenti kilomètre la ak lu teg digganteem ak masjidul xaram day mel daanaka ñoo tolloo rek ci distance bi ñu am digganteem ak kaaba gi waaye ba tey bokkuñu ndax bee ma nga ca yoonu madinatul munawwara booy dem madina bii nag ca beneen côté ba la nekk nga nekk fa jabalu nuur nekk jabalu nuur xeer la wu rëy wu mag boo xam ne ca xeeroo fam jeexee rek daanaka fala la xuntuma nekk xunt moomu nag da ko bëggoon lool fa la daa wéetale boroomam di fa jaamu yàlla ala diini Ibrahim gi nga xam ne maamam yépp noonu lañ doon jaamoo di fa wéet daana fa am sax ay bis yu baree bari daana doon ay fukki fan am na ñu ne daana fa dem ba mat weer sax woo xam ne dafay nekk noonu rek buy dem yóbbu yóbbalam li muy soxlawoo ci ay yére li muy soxlawoo ci lekk ak ci naan léeg-léeg mu dellusiwaat soxna Xadija mu wut soppil ko ay yéreem joxaat ko ay yóbbal comprendre ko lool nag nangul ko loolu nga xam ne moom la yàlla defoon mu bëgg ko muy wéetaay boobu euh, ci loolu nag biñ demee ba nga xam ne ci atum miladiya juddug Seydina Isa six cent dix miladiya euh, boo demee ci nattalekat yi borom xam-xam yi boo demee ci téere bi ñu naan nuurul yaqin nee na ci bisub altine ci weeru koor ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor tollanteeg moom mu amoon ñeent fukki at yu teg ay weer ak i fan sallallahu taala alayhi ci la ko jibril nag ñëwale jibril mi nga xam ne nag mooy malaayika bi nga xam ne malaaka bi nga xam ne kenn la ci malaayika yi mooy malaaka bi nga xam ne moom la yàlla di doxale digganteem ak ñi mu ci jaami mu yi jibril nag njëkkoon na ko ñëwee ci ak ndawam moom yonent bi bi mu nekkee ca village boobu ñuy wax Banu Saad te nettali woon nañ xissa ba ca bind yële weesu boobu moom jibril dafa ñëw ci melaw yi ko yàlla binde te melaw li yonent bi di baax baax ak li muy kawe kawe yépp saa yu jibril ñëwee ci melam boobu rek yëf yi da koy dikkal daal day def ay jeexit ci moom bu ñëwee ci waxtu tàngoor day yëg ab sedd bu méttee métti bu ñëwee ci waxtu sedd day dañuy daal di gis yonent bi ñaq lool te day di mel ne lu mel ne sibru daal bu koy melal moo koy dikkal diir bu yàgg nag da koy dikkal lu mel noonu Jibril euh, moom la yàlla di doxale digganteem ak yonent yi mooy malaaka mi nga xam ne loolu lañ ko jagleel yonent yi ko jiitoon yépp bu suñ boroom daa wàcc dara ci ñoom da koy jaarale ci malaayika bii ñuy wax jibril alayhi salaam yonent bi it noonu mu nekke woon ci xuntuma ci diir bu yàgg boobu di wéetal boroomam nag ci wéetal goo xam ne gu wuuteeg wala gu tum gu lool sax wéetal goo xam ne nii wuute wuuteeg wéetal gëm doon wéetal bi alquran wàcce wéetal gu wéet ca dëggu mi nga xamee ne jibril ñëw na ci melo yi nga xam ne moom la ko yàlla binde ca lu jiitu loolu sax borom téere yi nee nañ li njëkkoon daa feeñ ci moom moom yonent bi mooy saa yu gént rek su xëyee lam géntoon noonu la koy gisewaat dara du ci loolu moom lu ruya sadiqa lu lu lu daa feeñ la ci moom loo xam ne lu yéeme la woon ci moom day mel ne daal li doon ñëw dañ ko ko doon wan ci gént loolu moom yàgg na koo dikkal bi Jibril ñëwee poñe ko poñe bu metti bu metti lool boo xam ne yëg na ko bu baax a baax a baax ndax ni mu koy melale ci téere yi bu metti lay wax ba ko poñee it li mu ko wax mooy iqra jàngal sallallahu taala alayhi wa sallam ne ko ma ana bi man kat jàngu ma nu maa jàng te noonu la demee wax dëgg yàlla munta bind munta liir waaye nag ñi mën a bind mën a liir ñépp ci moom lañ jànge loolu kimtaan la ci kimtaan yàlla ma ana bi qaari nee dolliwaat bu baax a baax a baax a baax poñe gi dolliwaat ko bu baax a baax waxaat ko ne ko iqra ñaareel bi yoon bi yonent bi waxaat ko li nga xam ne euh, moom la ko tontu maa anaa bi qaari man mënumaa jàng waaye ci ñetteel bi yoon bi nag la ne ko iqra bismi rabbika jàngal ci sa turu boroom nga xam ne juróomi aay yi nga xam ne mooy jiitu ci suratul alaq mooy yi nga xam ne mooy njëkk a wàcc ci alquranul karim am na sax ci téere yi boo demee ci téere bu ñu naan nuurul absaar bokkut ak qurratul absaar dañoo nuroo nag nuurul absaar fi manaqibi alil muxtaar noonu la téere bi tudd téere bu am solo la boo xam ne eh, yu yéeme ca doy waar lool lay nettali ci mbir yonent bi sallallahu alayhi wa bokkut ak téere bi nga xam ne moom lañ baaxoo xam muy xuratul absaar nee nañ keroog ca xuntuma jibril daa jàpp wan ko ni ñuy jàppoo mu jàpp nee nañ jibril daa daal di julli ñaari rakka wan ko ni ñuy jullee mu julli loolu yonent bi la moo ko doon def moom booba julli wàccagut ci xeet wi jàpp yi wàccagut ci xeet wi nee na bi jibril pare dana ko xakasa nii rek la yonent bi xamoon na ni ñuy jàppoo lu jiitu borom bi di wax ni ñuy jàppoo ci alquran yonent bi daana julli lu jiitu ñuy santaane julli ca keroog guddig laylatul isra wal mi'raj loolu am na ci nettalikat yi ñu ko nettali waaye bi nga xamee ne jibril tàggoon ak moom ca loolu it bisub altine la woon ni nga xamee ne bisub altine lu baree baree bari ci jaar-jaar yonent bi moom lay dajeel bisub altine ci la gane jamono bisub altine ci lañ ko yónni bisub altine keroog bi muy gàddaay bi bisub altine la jógee màkk waaye bisub altine it ci la àgg madinatul a bi mu yegsee ci soxnaam su baax soosu di soxna Xadija nga xam ne wax nañ ci moom lu baree bari ay jaar-jaaram mooy kan mooy askan lan mooy askanam ca bind yële jàll wax nañ ci moom lu yaatu bi nga xamee ne agsi na ci moom lim mu doon wax mooy zammiluuni zammiluuni maanaam sàng leen ma sàng leen ma sàng ma nee nañ soxna si daal daal jékki rek sàng ko waaw dale ba dal nag ci la toog nag waxtaan ak moom lan moo xew ndax diir bu yàgg ñoom ñaar ñi ngi ànd lu mat fukki at ak nàngam ca melawu mel nii mosoo ko dikk fii ca yàgg ngaa dem ca xuntuma ci la ko nettali nag li nga xam ne moom la gis di malaaya malaaka ba mu ñuy wax jibril ak lam daj ak lam ko wax xadija ca saase rek daa daal di jug daal ne giñ naa ci yàlla ne li la dal de xuma doon waaye waat naa ci yàlla ne sun borom du la gàccaal mukk suñ borom day du la gàccaal mukk ndax day yow li daje ci yow ci ay jikko yu rafet kenn du ko boole yàlla di ko di ko gàccaal ku fonk mbokk nga ku mën a joxe ñam nga ku mën a teral doomu aadama nga ku mën a joxe cër nga tudd ay melo yu bari ne ko waat naa ci yàlla ne melo yi yépp mi ngi ci yow kon borom bi du la gàccaal mukk keroog tontu bu am solo bii la soxna Xadija wax loolu it xaw koo dëfal yàlla na yàlla dool yi ngërëm soxna Xadija ci la Xadija ci xelam mu rafet ak xelam mu yaatu te set te sell ci la ko xamal ne ko am na doomu baay bu ñu wax waraqatu ibnu nawfal moom day ku xam lu jëm ci kutubu samaawiye la téere téere yi nga xam ne daa wàccoon ci yonent yi daal di sàkku ci rasulullahi sallallahu taala alayhi wa ñu ànd fa dem booba Waraqa ku jëkk woon injil la nee nañ sax ci làkku ibraniya la ko doon la ko doon bind ci la daa bind injil bi ñëwee mu mu laaj yonent bi mu mu boppam ci làmmiñam la nga xam ne moom la daj ca xunt ma ndeysaan bi yonent bi daaneloo kàddoom rek Waraxatu ibnu Nawfal dane ko ah lii la dikkal day moo daa dikkal yonente yàlla Muusa alayhi salaam daan ne ko kooku mooy Jibril daan ko nag ab yonente nga daan ne ko ak a neexoon ma nekk xale bu góor nag ba nekk ci sawet booba warxatu nawfal góor gu màggat la goo xam ne dafa silmax màggat lool ko war naa ci yàlla ne day benn fan rek bu ma ko fekke woon ci sa ci say jamono yi nga xam ne ci lañ lay métitale danaa taxaw sa wet jàppale la daal di feeñal yéeneem jooy ci kanamu yonent bi ci la ko yonent bi ci la àgg sax moom war a noofal ne ko daañu la xatal daañu la génne sax dëkk bii nga juddoo yaroo fi màkk màgg fi muy màkk ci la ko yónnent bi ne ko génne danañ ma génne kon mu ne ko li nga woote ku ko mas a woote li ngay bëgg a woote ak li ngay bëgg a wax ku ko mas a wax ci aw nit xatal nañ la génne nañ la jotaay boobu la def ak waraqatu ñu noofal wax nañ ne boo demee ci nuurul nuurul yaqiin nuurul yaqiin boroom nuurul yaqiin nee na ci loolu jibril daa amaat diir bu yàgg ñëwut ndax yonent bi bu ko jibril ñëwee ñëwalee day yëg loo xam ne ci yaram bi ak ci xol bi ak ci xel mi maanaam day branché wu ci yàlla mu di ko yëg doos bi day des boo jibril ñëwalee ak ruu gi bu yëg yàlla bu baax loolu nag bu demee ba nga xam ne doos bi day commencé di wàcc day demaat ba nammaat jibril namm googu muy nammaat sayyidina jibril day dem ba da koy mel ne lu koy jural sax tawat waaw wax naa léegi ne jibril bu ko ñëwalee ci meloom day mel ne ku sibur waaye bu ko gëjee ñëwal sax day mel ne ku tawat boroom nuurul yaqin nee na xekk ma boobu xañ na moo tax ñu toog lu mat ñeent fukki fan yoo xam ne nii jibril ñëwut waaye teewut sallallahu taala alayhi wa sallam di continuer di dem ca xuntu manam daa demee ba mu demee ba nam mu jibril nag alayhi salaam ci la ko jibril ñu waraate beneen anam boo xam ne nii euh, incha allahu taala ca bind bale ci la ñuy leeral anam boobu waaye daal liñ bëgg a wax ci tolluwaay bii ñu toll tey nga xam ne nag euh, liñ doon nettali lépp ci siira daanaka xabla nubuwa lañ doon wax lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nekk yonent jaar-jaar yu riis yi yu am solo yi nii yu set yii lii Busayri naan <laughs> ku bëgg a wax ci moom del xool lu rafet la gën a neex rek nga xëpp ko ko wansib ila saatihi ma chita min sharafin xoolal lala soob yow miy wax lala soob rek ci xeeti tedd nga ak taraanga ak mbaax nga jëmale ko ci jëmmam ji mooy koo xam ne amuñu dara luñ mën a nëbbu wala lu ñuy nës-nësal ci askanam wala ci jaar-jaaram loolu bind yi ñu weesu rek muy juróom-ñaari bind yi ñu weesu tele na ko te liñ bàyyi wala liñ waxut moo ëpp waaye it soxnaam sii di soxna Xadijatu nga xam ne ay jaar-jaaram ak matam wane ne ko bu baax a baax a baax a baax te loolu bi mu wàcceeb liggéey moom Xadija ay fukki at ak nangam téewut yonent bi da ko doon seere maanaam da doon seere ay kàdduy seere yoo xam ne da ko doon jëmale ci bis yii nga xam ne ci la nekkoon Xadija di ko taxawoon yi yaakaar naa bu ñu demee ci mbindum sëriñ bi danañ gis saa yuy tawassul ci soxna yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam wala ci alul bayti sax soxna si lay njëkk a tudd bi ummina Xadija yàgg nañ koo gis ci mbindam te saa yu tudd rek ndeysaan du ko sàllalu day wax ne sunu waajur woowee di Khadija ñaare fum koy tudde rek euh, da ci ñaan ci barkeem te ñoom ku ñuy ñaan seen barke rek aji bari barke nga kon kii ko séq nga xam ne moo ne ci wetam di soxna Khadija te jataay bële nga xam ne mooy bi gën a metti nag wala jotaay yii ñu jëm nga xam ne mooy gën a metti nag ci jaar-jaaram ndax biñ tàmbalee wax ba léegi daanaka li ñuy wax ci jaar-jaaram mu metti lépp ndogalu yàlla la gisaguñ waxaguñ dara loo xam ne dafa bàyyi ko ci aw nitam waajuru mu noppalu yaayam ju noppalu askan wu ñàkk wu mbokk yooyu yépp mbir yàlla la lépp sax mbir yàlla waaye yii ba tey waxaguñ dara dara dara loo xam ne daa bàyyi koo ci ku faaru màkk léegi nag loolu moom muy bëgg a ñëw nag muy ay jataay ak i nettali yoo xam ne nii ay tur yoo xam ne nii yii yu ko jege lañ ci wàllu askan ku ci mel ni Abu Lahab nga xam ne ganek jamono gi yonent bi am na luñ ca nettali woon ak taxawaay bu rafet boo xam ne taxawaay bu rafet moom aboo Lahab bu mu ca def ñii seeni tur ñëwagut feeñagut waaye ki lay tàmbalee feeñ nag bu baax a baax a baax a baax te ñoom ñépp nag keroog bi nga xamee ne ñi ngi doon teg xajarul aswad ñoom ñi ñépp ñoo taxawoon ne kii dey mooy ku ñu wóolu ki lépp lu mu àtte gërëmloo nañ ko ñooñu nag ñooy bëgg a feeñaan nag yàlla kàtt nañ leen def ci ñoom mbañeel goo xam ne nii gu jéggi dayoo la ñu di ko wane ci jëmmam ju tedd ji moom sallallahu taala alayhi wa di ko wane ci aw nit yi nga xam ne nii dañ koo gëm ca seeni tur ñoom it feeña gudd na feeñ ci ci ci ci ci leçon yi ñu jëm kon daal day mel ne lii waraqatu ibnu nawfal waxoon yonent bi loolu faw danañ ko gis ci mbind yi ñu jëm te loolu mooy yow day li nga woote ñi ko mas a woote ci yonent yépp dajoon nañ loo xam ne ni lu metti la woon daa ñu la génn fii nga xam ne fi nga juddoo fii nga xam ne bu ñu doon wax naan diw lañ koy moomale mën nañoo wax ne saw askan lañ koy moomale ngir gi nga bokk danga dem ba xat fi lool ba génn fi ci génn goo xam ne daanaka sax du sa coobere waaye xatal gu metti moo tax nga génn ko day mel ne yii yépp dana ñëw nag ci lañuy dugg nag bu baax a baax a baax nag ci duruus yi nga xam ne nag mooy jàngale tàmbali bu woote bi loolu nag di ko waxtaane dafa am solo ndax dangay ngay daal di xam ne yow jullit bi waxtu julli bu jotee walla waxtu jàpp wala waxtu woor wala sax xeeti jaamu yàlla yi boo ci bëgg a def danga koy def ci anam bu la neex te bu njëkk daawu demee noonu nettali gi day dolli ngëm nettali gi day dolli kafeel ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa ndax ay ay ay ay ay ay ay ay jamono la yu metti dëgg la sax ñetti at yu njëkk yi mooy étape daawa sirriya maanaam étape la woon boo xam ne nii jafe-jafe yi taxutoon mu demee noonu ndax li ñu doon woote siiwutoon seen biir la yemoon waaye bañ demee ba nga xam ne ci la ko borom bi nag ne ko yaatalal woote bi ah boobu moom am na ci aw nitam ñoo xam ne ci lañ doxee faatu am na ci aw nitam ñoo xam ne ci lañ doxee tàggoo ak seeni mbokk am na ci aw nitam ñoo xam ne ci lañ doxe ñàkk seeni alal te ñoo ñëpp seeni tur dana wadd ndax biñ tàmbalee ba léegi daanaka diggante jaar-jaaram ak i mbokkam lañ léegi nag ci la ñuy tàmbalee nag di tudd nag turu saxaabatul kiraam ridwanullahi alayhim loolu ci bind yi ñu jëm la kon day mel ne nag kon ginnaaw bi nga xamee ne jibril ñëw na ci ñeent fukki atam jibril ñëw na ci atum 610 miladiya jibril ñëw na ci bisub altine jibril ñëw na jox ko juróomi aaya yi njëkk a wàcc alquran ci suratul alaq ci la yonente gi nag tàmbali nag mu nekk yonante yonente mbokk yi kon euh, xam naa fii la ñuy bind boobu noonu ba dellu siwaat ci juróom-ñeenteel bi jataay bi ñu waxtaane nag ginnaaw ba jibril ñëwee yeneen jataay yi nga xam ne ñëwaat na ko ya ca xew ak ña ca njëkk joxe seen seen seen seen seen kàddu seenu ngëm joxe seen bopp ñu jiitu ci joxe seen bopp gi ak programme bi nga xam ne moom la yonent bi tegal teg ci xereñam ba réussir bu baax total ci wooteem bii nii yàlla nañu ko yàlla fayal ak ñooñam ki saxaabaam kon ñoo ngi sant mbokk yi yépp di sant Cheikh Abdul Qadir mi nga xam ne mooy taxawu jotaay yi ñu ngi leen di joxaat ndaje incha allahu taala ci bind bii ñu jëm incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. wal imaamu imaamul ma'an wal anbiyaa'i yaqiihim fil jawwal umamaa يوم القيامة تأتي الرسل والأنبياء